waaw moom la fi yàlla teg daf may neex man mu naqari ma moom laa fi gis mooy sama président suñ ma laajee kuy sa président man Macky Sall laay wax ak Joe Biden mais mooy président sénégalais yi nit da ngay dëggu ca la nga ne waaye amul kenn ku ma yéene fii ñu tas ensemble bi tey ndax yéen ñëpp kenn ku ci ne responsable nga kenn ku ci ne am na looy lijjant looy looy servir ca fa nga dëkk gis nga iñaan gi ak soxor bi nañu ko arrêté te waxante dëgg te wax ñii di ñu seetaan muy sénégalais yi li ñu war a fii réew mi war a jëm moo gën ŋàññ bi xanaa booy soxor di xuloo di xeex ba yàlla jox la pouvoir nga mën a taxaw fii nag wax askan wi lu ñu mën a dégg mais di xuloo di kaas di di ñu saaga di dem ci social media bi duñu saaga Guy Marius Sagna nee na bu Sonko ñëwee dañ koy lekk duñ ko lekk dañ koy fiiriir dañ koy dogo dogotee dafa ñaaw rek sénégalais yu parewuñu pour dégg loolu tey dañu buggoon dégg projet loi bi ñu dugal fan lay mujj loolu la sénégalais yu bëgg a dégg mais nag il faut ñu xool nu ñuy defanteeg réew mi ngañam ngañam gii nag du manqué lii nuy wax nii kenn ku ci ne dafa am koo faral te kenn ku nekki nga faral moom ngay wàcc baagam.